daal dinañ leen sargal ci seen kanamu ay wayjur jàngalekat xarit ak i jegeñaale ñaar ci ñoom nag jël raw gàddu Miss Science ak Miss Mathématiques 2022 2023. maa kontaan trop sama xarit yaa ngi fee toog sama tonton sama maam bu leen foog ni que mathématiques chose de difficile parce que loolu ay rumeur la rek du dëgg exercice rek la. tu na ngay def exercice. maîtriser ko. concours scientifique boobee nag di encourager jigéen ñi ngir rek ñuy gën a intéressé wu ci filière scientifique yi. état ci boppam mi leen di pouse pour ñu gën a jàng jëm ci njàngum science njàngum mathématique njàngum SVT yooyu njàng yi nga xam ne dañu jàpp ba ci informatique ingénieur ñu jàpp ne góor ñoo ko moom te léegi ku nekk xam na ne góor moomu ko jigéen ak góor ñoo mën a bokk di liggéey yenn yi. concours scientifique bu ñu jagleel jigéen ñi dina tax sax ñu gën a mën a réorienter système éducatif bi. fexe ba njàng mi njàng mi ak école bi xale yi ñu ñu tàggat leen ci euh, science tàggal leen ci technologie mais tàggal leen également tàggat leen également ci domaine boo xamante ne nii tey jii domaine suba la. teewaayu jigéen ñi ci biir filière scientifique yi fii ci Sénégal nag jàpp nañ ni dafa tuuti lool concours bee nag nekk stratégie ngir mën a defaraat loole te gën a ñaax jigéen ñi ci yooyu la matière li bees ci bile événement Miss Math Miss Science nag at gi ren mooy ni dañ cee boolewaale lauréat yu olympiade mathématiques yi le